cas communautaire yi bi ginnaaw ba mu amee jël nañ mesures yoo xam ne mesures yi am solo la benn bi mooy euh, ki nga xam ne feebar bi daf koo dal ñi nga xam ne ñoo njabootam tey jii ci guddi dañ leen yóbbu hôtel loolu mooy li nga xam ne moom la gouvernement bi décidé te tam moo gën dañ leen yóbbu ñëpp hôtel muy waa këram yëpp lu mat fukki nit la ñu kër euh, rakkam bi nga xam ne moo ko gënoon a jege itam parce que dafa daan nekk ak moom ba mu feebaree tout ça booba xamuñu ne coronavirus ko dal moo ko jàpp euh, kooku itam dafa jege woon donc ñoonoon ñu ay contact à risque lañ ñooñu aussi dañ leen di yóbbu bu mat laal buñ ko xaymaa ci tàmbali bi parce que xamuñu fan la ñu jëm ci tàmbali bi mat la ñu mat euh, ñaar fukki nit tey ji hôtel ba la ñuy fanaan ni dañ libéré ñaari kër yi ñu jël leen ak suñu moyen transporter leen ñoo leen di defal lépp bu ñu demee ci hôtel ba ñoo leen di yoreel seen lépp ku ci nekk ñu yóbbu leen seen nekk xool leen may leen temps ñu xool ndax dañuy développé feebar beem déet kër ga ñu tëj ko am ñu gardiennage ñu yóbbu ko police mu fay garder 24 heures sur 24 di ko surveiller parce que ay bagages nga seen i lépp nga fa loolu bokk na ci mesure bu ñuy jël tey beneen bi mooy euh, transport bi ni ni ñuy mel ci transport bi jaadowul dañuy sax fees dell te dafa nekk loo xam ne mënatuñ ko nangu ba tax na li ci arrêté bi wax moom la ñuy appliqué tolérance daal dootuñ ko def li mu mën a yëpp muy xaaj bi ba nga xam ne day féex du am concentration humaine ni ñuy weccoo ay euh, noy lépp mën fa am euh, loolu daal dañuy fexe ba suba loolu dootul mën a am dañ ko tere ñi nga xam ne tamit dañuy dugg ko génne di dem ci yeneen région yi dugg ko génne ñooñu dugg ak génne bi dem bég ñëw bi mooy waral feebar bi di tasaaroo loolu aussi bañoon nañ ko naam jàpp nañ ay jakarta jàpp nañ ay oto waaye dañuy gën a taxaw pour loolu loolu bañ am si biir marché bi tam ma dellu si si am na ay koñ yoo xam ne moom saa yoo demee day fees teel ak ay nit lu mel ni maquette bi fu ñuy jaay ay portable ak yooyu saa yoo demee la fay nekk ci nit ëpp jéggi na dayoo yooyu yooyu yëpp dañ leen di tas point yooyu yëpp dañ leen di tas ba kenn dootu fa ne ba tax na ñay jaay lal wala ñay nekk sa cantine ya wala ñi nga xam ne dañ teg seen table ñooñu ñooy nekk ci marché bi waaye ñëpp ñi nga xam ne dañuy taxawaalu euh, fees dell ci koñ yi yooyu dañ koy tas te ci marché yëpp la du ci marché Ocass rek marché yëpp lañuy ñuy tas fépp foo xam ne nit ñi dañ fay dajaloo euh, raj dajaloo fa dañ koy dindi ba loolu dootu fa loolu dootu fa mën a am. heure yi nag heure yi. six heures ba trois heures la euh, xam nga ne loolu lañ leen mayoon sax naam ndax sous préfet jëloon na benn arrêté. ne marché yi day tijji 6 heures ba 3 heures waaye après moom maye woon na tolérance sax ba 4 heures waaye loolu dañ ciy dellu see dootuñ maye tolérance 6 heures 3 heures fu mu jotee cantine yëpp tëj nañ marché bi laali nañu. parce que booy toléré kay day fekk yaa ngi si jàmm waaye loo xam ne ñun xamu ne fan la ñu jëmee ndax contact communautaire dafa dafa grave parce que xamu ki ko am xamul fan la ko jëlee xamul sax ñamu wàll loolu nag buñ ko amee dañuy defaraat suñu toogaay moo tax lañ maye woon dootuñ ko maye règlement bi daal. li ñu tëral dañ koy respecté ndax dañuy bañ mu law ba jéggi ñu day dégg day romb ñu